ñaar fukki fu ma faree fu ne maa nga foofa kenn mënu faa jëlee nit dafa war a am xel man wax dëgg yàlla Ousmane Sonko ba barke Rasulaay ñàkk ànd ak moom sax rek daañu doo jaamu yàlla. billaahi koo xam seytaan rek la bëgg wallaahi man fu ma toll fu ne man maa ngi ci siiri maa ngi yow ba bëggee gi mbirum politique maa ngi sa gannaaw te lu ma mën lu ne danaa ko def. résultat yi jàll ku nekk xam na nam demee woon Sidi Ndiaye xam na ko noonu rek lay demee waat ñun xale yi fii ñoom moom dëkk bi paa yëpp nañu ànd mais ñun bu ñu fu ñu jëm ñoo leen di daal bëriwuñ kër goo dem fekk ko fekk 10 góor benn paa nga fay fekk benn jeeg ñun ñoo fa ay jabar ñoo fa yor ay xale fu ñu jëm rek ñooñu ñooy gañ lu leer laa la tegal nii kon benn instant léegi xamal ne foofu moom pare na. man Seydi Ndiaye moom man damaa tudd Seydi Ndiaye ba far far ak moom noonu la doxee damaa tudd Seydi ba far far ak moom. xool le maire sortant monsieur Seydi Ndiaye ñu ne ko yow la ñuy tuddee suñu bis bii loolu buñ ko déggee mooy suñu xel ak suñu xol buñ ko fàtte moom ndax li mu liggéey si tur beneen bi mooy dafa délégation bu am doole su ko neexoon moom kese mooy ànd ndax moom kese lañ ko tuddee mais defu ko dana damay ñëw sargal Ngaraaf damay ñëw mboolee leen damay ñëw ànd ak yéen ak doole beneen bi mooy kii nag yaakaar naa xam nañ ko duñ ko wax seex dañ koy wax sëriñ muy sëriñ Abdou Bara Dolly Mbacké xam naa xam nañ ko mais xamu ngeen ko kii moom mooy xeexal peuple Sénégal moom moo fi nekkal ñi nga xam ne ñoo fi nekkul. alal taxu ko mu jóg di politique kon nag suñu toogee parfois di ñu wax naan ñu da ngeen a am ah, candidat boo xam ne seen dëkk la dëkk c'est vrai mais ñun nag ba ñuy politique politique ñu pour candidat bu ñuy tànn dañuy politique pour développement boo xam ne danañ xool fu nu mën a jaar parce que tey. tànnoon koo xam ne dafa bokk ci Amadou Ba dañuy ànd ak moom mais ñun Ousmane Sonko la ñu contre pourquoi ñu contre Ousmane Sonko parce que bu leen xoolee nit koo xam ne waxi démbam bokkul ak waxi tayam je pense que ne loolu ñun dañuy wane ni ànduñu ci. te tamit beneen bi ci tegu. moy Sénégal dafa am fumuy muy dox Sénégal tarixa moko yor so demone tay rew yi nga xamni ne ñoo wër Sénégal yëpp coup d'état am na fa. soo demoon Gambie coup d'état am na fa jëlee nañ fi président ba nga dem guiné coup d'état am na fa nga dem Mali coup d'état am na fa Mauritanie coup d'état am na fa guiné Guinée Bissau coup d'état am na fa. pays yi nga xamni dañoo frontière ak Sénégal benn bu ci nek coup d'état la ila Sénégal loolu lan mako def. loolu suñ sëriñ si baax si la suñu sëriñ soosu na ku ñu leen xeebal ñun mënuñu laa yëkkati tant que yëkkatiwoo sëriñ soosu parce que sëriñ soosu ñoo fi indi suñu indépendance kon damay wax ni wax bi bëgguma koo guddal. félicité équipe yi nga xam ñoo doon football tey di félicité ki jël coupe coupe bi mooy ki gagné di encouragé kenn gagné xam ne ñoom ñëpp ñoo bokk département bi ak dëkk bi lii mooy Sénégal. dañu fas yéene incha allah di gën a dugal suñu loxo ci li nga xamante ni moom la xale yi wax seen bëgg-bëgg fii si terrain bi loolu sii di daan si waxtaan ngeen jéem a xool loolu lu lu muy tollu incha allah nu jàppaleen si bu ñu yàlla yóbbuwaatee assemblée nationale. Monsieur le maire Sidi Ndiaye ci tur délégation bi nga xam la àndal man de bi ma yàlla yóbbu assemblée. maay député bu njëkk a kaasal Sadio ab tëli te ba ma kaasee tëli boobu noonu Sinwaa yi tàmbali woon nañ ko mais si nguuru Jomaay ak Ousmane Sonko si lañu jël bagage parce que fayaguñ leen seen xaalis te wax naa leen ne leen bis 2025 bii xaalis bi war a defal tëli Sadio bi mi ngi ci digganteñ Sadio Ngaraaf ak tëli bee ne xaalis boobu doon disponible naa bu ma demee dinaa ko kaas pour ñu mën ko def bu neexee yàlla. bu ñu yàlla yóbbu assemblée dañoo ñekk ay député yi dignement teewal département bi lépp lu ñu def ngeen di ko dégg dañu ko yokk parce que Ngaraaf ci Sénégal la bokk Ngaraaf ci département bi la bokk te waruñu ko wan ginnaaw parce que ay nit ñoo fi dëkk fexe leen a waxal seen waajur yi ngeen wote coalition jàmm ak njëriñ te Amadou Ba jiitu ko ndax la mooy meilleure coalition ndax maa ngi wax sama benn xarit fan yee si ginnaaw muy Ousmane Sonko dégg naa mu naan neel Cheikh Abdou Bara Dolly bondé wu ma tànk yee dëng mais borom tànk yi dëng war dem assemblée nationale war leen ko jox majorité ndax assemblée borom tànk yi dëng war faa dox parce ay ay fa nekk amul fu ñuy jaar pour mën a yéeg kon Ousmane Sonko war leen ko jox majorité parce que ndaw bu amul xam-xam yàkkamti lu mu wax du ko def boo ngeen ko joxee seen majorité da ngeen di seen bopp encore kon jàppale naa ne majorité bi nañ ko jox Amadou Ba Amadou Ba mooy ki nga xam ni mooy borom xam-xam la am. xam na réew mi am nag dal bëgg na kilifa diine yi ànd nag ay doomu daara ko si mel ne Cheikh Abdou Bara Dolly ak ñii nga xam ne ñoo ne si département bi ak ñeneen ñeneen kon yéen ndaw ñun maa ngi leen di garanti leen la seeni soxla bis ni tey faju na dinaa fasante yeen coloré

jëme ko si sëñ Ibrahima Niass parce que kilifa diin yëpp benn la kaddu yu boko boo ko fenn ci kilifa diinu goo xam dafa am ngërëmul yalla ci ñëpp nga ko jëmee ta bu nee ba xam am néegub yàlla bi nga xam Serigne Touba mom la gëna fonk mu ni am ay signe franc maçon seen bindi dañ ko war a yaraat daal ni yow ak man ak suñuy wajur ak suñuy mam li tàmbalee tam xarit ba gamu addé di lepp trafic manam dafa nek lo xamanteni dañuy balancement argent ak di capitaux génnoo si ma si parce que kilifa diine la wax kon jàpp naa loolu war na koo xeex beneen bi mooy li nga xamante ni mooy nag daj dëpp gi mooy lu am na si bi Ousmane Sonko ñoo àndoon mu ni Macky Sall moo gën a bon moo rey nit ñi man ak moom bi ñuy ànd moo ma ko wax luwaa bi wote nan ko nee na Macky rayoon nit ñi Macky na Ousmane rayoon ñu ngi ko jiinante bëgg na bu amee majorité ñun ak Amadou Ba ñu jàll luwaa boobu kon bëgg na nga ñaanal ñu ñu dindiwaat luwaa boobu pour ñu xam kan moo rey doomu jàmbur yi loo tamit ñu ngi la koy ñaan nga ñaanal ñu si ñu am kon dal si gattal li ñu tënk mooy fan bëgg dem réew mi lañ fa bëgg a teewal fa julliti yi fa ñëpp ño xamante ne ngi ci réew mi ñu nak ci liste nationale bi la nekk waaye liste département buñu sañu ñu ko te ab dëkk mëno gañe liste département bi wala nga dem liste nationale te na gañe wo département bi loolu mata nga ñaanu tamit candidat yi nga ñom lañ andal sama borom may la victoire fi nak am candidat bu fam waye candidat bopam la du candidat Sadio parce que candidat Sadio moy ki nga xamni da dana am tawarté ak pas-pas ak liberté bu demee assemblée nationale taxawal dëkkam waaye koo xamante ne ak nit moo la tànn nit ka la tànn boo demee fan la tànne doo wax lu naqari nit kooko lu neex nit kooko rek ngay wax moo tax jàpp naa ne bu ma nekkul ensemble de Casa Sadio du ngeen am député bu Casa Sadio parce que man doo nga nekkum foon nag am na yeneen député yu ne si département bi mais kenn mësul dégg seen kaddu ñu xas kilifa diine ñu yëg seen kàddu wala ñu jëf-jëf dara jugal ko foofu noonu li ñu fi mag ñi bayee nag. mu ne ah ñoom leen fi mag ñi bayee nag. muy sa maam. muy sa maam yow. di sama maam. di maamam moom. ku ñu ko xeebal. ku ñu ko ku leen ko xeebal. ba di ci wax wax ju ñaaw. ba di ci wax wax ju ñaaw. doomu aadama la yàlla bindee rek. doomu aadama la yàlla bindee rek. su déggee lu ko naqadi rek. su déggee lu ko naqadi rek. manifester. manifester wu. waaye borom dëj bi. waaye borom dëj bi. mën naa jooyab dëjëm mën naa jooyab dëjëm de. wallaahi laazim. maam borom Touba. ko tooñ ku ko tooñ weer wi delsi ba déwén weer wi dara daru dara daru la dañ la koy jiiñ dañ la koy jiiñ mën naa fajal boppam mën naa fajal boppam samba mën na kanamam man ginnaawam mu samba mën na kanamam man ginnaawam loolu noonu waa ji wax nee na loolu noonu waa ji wax foofu laa ciy yem foofu la ciy yem yaakaar ji ngeen am ba ñëw fii nii yaakaar ji ngeen am ba ñëw fii nii yàlla bu ko yàlla tas yàlla bu ko yàlla tas amin mu ngi leen di ñaanal yàlla nee na ngi leen di ñaanal yàlla li ngeen di jublu nii. li ngeen di jublu nii. yal na yàlla defal leen ci ndam. yal na yàlla defal leen ci ndam. jàmm lal ko. jàmm lal ko. njëriñ lal njëriñ lal ko. loolu rek la ñuy doyee doomu aadama. loolu rek la ñuy doyee doomu aadama. doomu aadama booy topp. doomu aadama booy topp. da lay amal njëriñ. da amal njëriñ fii. amal la njëriñ fële. amal la njëriñ fële. waaye nit ko amul njëriñ. waaye nit ko amul njëriñ. jarul topp jarul topp. yal na yàlla defal jàmm. yal yàlla defal ñu jàmm. yalla defal len barke defal ñu ko ñun ñëpp. ni ngeen ko tambale bismillahi rahmaani rahim. ni ngeen ko ci bismillahi rahim. ngeen ko rabbil alamin. donc euh, ñu ngi nuyu di sante ñëpp di jital ci nuyu bi ak ziar bi suñu kilifa bi ñu andalon di suñu tedd ba yalla Alla la tay ñu demone tourner Sadio muy une première fois ñu def une sortie ci monde rural bi fekk won fa suñu responsable le maire sortant pap Sidi Ndiaye. Nous tudde woon ko benn final bu am am solo ci fale ci Ngaraaf benn village la dans la commune de Sadio ñu demoon fa vraiment euh, fekki ko def une forte délégation àndoon aussi ak euh, l'honorable député Cheikh Abdou Bara Doli vraiment ak mom ak délégation bi mu andalon àndaloo ak délégation bi aussi ñun ñep ñu àndandoo dem fek fa Pape Sidi fek fa mbolo mu tàkku té itam fekk fa engagement euh, tous derrière le président Amadou Ba fas votel ko 100 donc ci village bobu Ngaraaf ak liko wër ñom mom Sidi lañuy lañuy top Amadou Ba lañuy top. parce que li ñuy wax ñu ñep dégg nañu ko donc euh, biñu fa joggé def nañu caravane ci Sadio ak mag yu bax yi ci Sénégal donc euh, ñu ngi leen di sant leen gërëm ci turu Baye Allah. nag vraiment ndax moy suñu kilifa moy suñu tête de liste moo ma wax loolu sax lii may wax ngeen man ma féete ci monde rural bi aussi loolu kese moo waral ma yëkkati kàddu.